ñu ñaan sunu borom yàggal ak dundam te wéral ay cëram yéene ji mu am ci liggéeyu sëñ Tuubaa mu def si lu kawe njor te ànd koog murit yëpp di jot li nuyoob sëriñ bi akub ziyaaram mu jóom ci mbooleem njabootug sëñ tubaa gi mboolem ñi nga xam ne ñoo teew fii di ay kilifa te sëriñ bi dénk leen liggéey bu màgg bi nga xam ne amuñu lul moom ñu nekk ci ni ko sëriñ Fallu waxe waajal bis bi saa su ne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 li nga xamne moy kaddu yi nga xamne mo bayiko nak ci serignam di Fall di jëwriñu mam Cheikh ibrahim Fall mi nga xamne mi ngi koy wax ci turu mbollem njabot gi mu jité di njabootug maam Cheikh ibrahim Fall gannaaw ba mu jottalee ay cant ak i ak ñaan mu jëm ci Cheikh Modou ak bopam gi di njabootu serigne Touba neena mi ngi feddali ak di yeesal pas-pasam akuk di yeesal ak jaayantem ci diggam ak serigne bi xam ne moom day nee na li leen fi indi te bàyyi leen fi weesu wut jëfe ndigali Serigne Touba rek amuñu génn bëgg amuñu lenn lu ñuy teg suñu bët lu ñuy xool lu dul lépp lu Serigne Touba joxoñ rek wala luy ak bëgg-bëggam loolu nag tàbbi na si ndigal lu yees lii nga xam ne dafay mel ne ñun ñëpp léegi xam na nañu ko yëg nañ ko si biir réew mi ak si bitim réew muy liggéey bii mu dénkaat njabootug Seera Fall muy sàmm war ma ji nga xam ne moom la ñu warloo. ak Serigne Touba ak war ma warlo, warlo suñu digg ak dekk bi di Touba Serigne bi am ndigal lu mu ci jox waye nak tegal nu aw yoon wo xamni yoon wu leer la bu nuy jaar ngir jëfé ko ngir mëna dajé ak bëggam Serigne am di diwahne wax ne mi ngi fatali bopam di fatali ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk biir Touba nu xamne ne Serigne Touba day day sentu ay gan te gan ñoñu day gan yu mag lañ Serigne bi di wax ne